ku ci nekk. yaa ngi ja yor sa bopp rek. yaa ngi jéem a yor sa bopp rek. di wax rek. di wax rek. ma seetatoo kilifa. seetatoo kilifa. seetatoo dara. seetatoo dara. seetatul dara. loolu moo yàq réew mi. looloo yàq réew mi. Mm, mm, li koy defar nag. li koy defar nag. mooy nun. mooy nun. nan ragal yàlla. nan ragal yàlla. topp yàlla. topp yàlla. bu nu ko defee. bu nu ko defee. ah boo lëggee. boo lëggee. daanu am jàmm. daanu am jàmm. bu nu toppul yàlla. bu nu toppulee yàlla nag. boo lëggee. boo lëggee. gàcce rek la ñu am. gàcce rek la ñu am. ku amul yàlla nag. ku amul yàlla. doo am dara. doo am dara. na ngeen nu góorgóorlu bu baax. na ngeen góorgóorlu bu baax. te topp yàlla. te topp yàlla. na nu góorgóorlu ci suñu bopp. na nu góorgóorlu ci suñu bopp. te nu fonkante. fonkante. jàppante. jàppante. ah wóoluwante. wóoluwante. yaakaar adelante. Ya